thing. waaw Choumi TV mi ngi leen nuyu Choumi TV mi ngi leen nuyu di leen di leen ñaanal ak salaam que ni vidéo bi fekk nañu ñëpp si jàmm may kon encore une fois di leen rappeler ñi nga xamante ni ñu door a abonné chaîne bi mi ngi leen wax rek leen welcome back to the channel yéen a ma gën a xam mun naa ne comme rek ni ñu koy faral defee a chaque fois waaw vidéo bi nag Choumi TV tey mun naa ne ñëw ma sax pour chroniquer à cent pour cent mais dafa mu aussi benn message boo xamante ne dama ko bëggoon véhiculer euh, mais message bi nag mi ngi concerné vidéo bi nga xamante ne dugal naa ko démb jëm ci clip Ngaaka Blindé bi mooy clip Iblis mais laataa ñuy dugg sax ci waxtaan boobu noonu dama bëggoon commencer ci clipam bu bees bi nga xamante ne aussi génne na ko démb ñëpp gis ngeen dafa génne benn clip boo xamante ne mi ngi ko tuddee Pépé muy benn clip boo xamante ne yéen ñëpp comprendre ngeen concept bi you know seen c'est une chanson d'amour waaw c'est une chanson d'amour clip la boo xam ne ñu ngi ko réalisé en Italie mais ñu ci bari si yéen soo leen dégloo c'est une sonorité musicale boo xamante ne du lu bees ci moom parce que ñu ci bari ñu seraan clip Kitoko ñu ci bari ñu seraan yeneen clip ak yeneen clip ci page Ngaaka di ngeen xam ni sincèrement li ma yàgg wax ci moom moom loolu kenn du ko dindi mooy c'est un rappeur extrêmement polyvalent waaw différentes styles musicaux la xëy na sénégalais ñoo ko wooyee un rappeur sax mais man yàgg naa ko wax man góob amoo rappeur you feel me man mu artiste laa gëm parce que si tu es un artiste da ngay doon ko xamante ne da ngay polyvalent waaw nga ak leneen nag jamono yi ñu nekk sama gars yi ñun les sénégalais bu ñu gumboolu kenn werantewul dinañ xam ni sincèrement King Baba dafa téye game bi waaw mun naa ne tey jii Hip Hop seen li ngeen dégg ci son bi démb li mu wax ne ngaa ko bu génnee game bi game bi sàmbara xaw ma loolu mooy li am waaw sincèrement quoi Ngaaka Blindé dafa influencer game bi à un niveau boo xam ne mën naa ni sax léegi gis naa ne sax yaa a même des chroniqueurs yoo xamante ne sax duñ sax de sénégalais you know ñu ngi from yeneen dëkk léegi ils vraiment intéressés ci ay you know seen lu jëm ci rappeur sénégalais waaw sincèrement King Baba dafa influencer gars yi quoi honnêtement. muy nag benn affaire boo xamante ne moo ko moom dañ ko ko war a jox aussi c'est quelque chose apprécier parce que ñëpp gis ngeen ni bi boo leen ci duggee rappeurs yu bëri man benn problème laa am ak ñoom mooy ils ne sont pas consistants maanaam duñu ay nit yoo xamante ne nii you know am seen fi ñu war a teg gem bi dëgg teg nañ ko fa peut-être xëy na dañu am yeneen business yoo xamante ne moo leen ëpp solo. waaw nit ku génne benn kilip ñëpp di ko coow clip bi ma doogul sax vingt quatre heures you know am seen nigga bi fàtte ne clip boobu dugalaat beneen clip je pas nag xaw ma lan moo waral muy def loolu temps yi être you know what I'm saying King Baba dafa bëgg forcer yeneen rappeurs yi pour ñu yëngal game bi je sais pas wala peut-être xëy na dafa bëgg wane nouveau statut bi nga xamante ne moom la am ci biir game bi parce que yéen ñëpp gis ngeen ni Ngaaka dafa changé lu bëri dafa changé style am dafa changé sax turam léegi mun naa ne tudd tur Ngaaka Blindé King Baba la tudd waaw mais nag Choumi TV tey sama gars yi ñëwuma sax pour décortiquer ko ci clip bi clip bu dóob la clip bu nice la sonorité musicale bu dóob la ko tëddee la ko tëggee muy benn sonorité boo xamante ne ci musique jamaïcaine lañ koy faral di ko dégg waaw ci musique jamaïcaine lañ koy faral di ko dégg sonorité musique jamaïcaine la waaw sincèrement quoi ni ñu ko réaliser moom c'est extraordinaire boo leen xoolee ni ñu ko filmer ma nég ah, réalisation bu naaj la image yu extraordinaire la soo leen xoolee sax xam ne du Sénégal waaw ay booru Europe yooyu daal la may gën a nduru côté Europe boobu la may gën a nduru mais sincèrement King Baba nag sama gars yi waaw li ma leen wax léegi rek loolu sax moo gën a tax ma ñëw pour def vidéo bi mooy ñun les sénégalais sama gaay bu ñu génnee ci clash ndé bi fi jàlloon ak tout film mi King Baba nañ ko jox cërëm ci Hip Hop parce que Hip Hop Galsen moom ñun ñëpp xam ni c'est une plateforme boo xamante ne dafa slow film yi ñi ci nekk duñu meeg mani mënuñu am xaalis parce que système sénégalais bi loolu génnew ci woykat yi Sénégal dëkk la boo xamante ne nit ñu bëri ils n'ont pas l'esprit de business te loolu yàgg naa ko wax. waaw nu ñuy mayee artistes yi ay millions de vues ci YouTube bi bu ñu leen ko doon mayee noonu seen concert yi kon Hip-Hop Galsen du am problème mais malheureusement nag ñu ci bëri si ñun suñu mbëggeel ak ci commentaire rek lay am. waaw mais jàppalewu ñu yi jàppalewu ñu artistes yi. waaw Choumi TV nag bëgg leen wax rek ne leen clip bu dóob la clip bu nice la ñëwuma pour décortiquer ci parce que léegi Ngaaka Blindé dafa commencé protéger ay son waaw ngaa ko blende dafa protéger léegi ay son ci YouTube bi eh, chroniqueur boo xamante ne ni nga daan defee vidéo ci moom nga koy defee mun naa ne da am ay problème ak YouTube da ngay am ay problème copyright waaw léegi son boo ko dugalee son bi dafa am copyright léegi kon mënatuma ñëw ñu doon seen ci ay son ngaa ko blende di ko décortiquer comme ni ma ko doon defee léegi damay ñëw rek jox li nga xamante ne moom laa ci xalaat waaw parce que King Baba léegi dafa protéger son mi quoi damay bañ YouTube dóoruma ko ay copyright waaw loolu daal laa amoon lu ma wax ci son bi mais deuxième partie sama chronique tey dama ñëw wax fan Ngaaka Blindé ñu ci bëri seen gis ngeen ni démb ba ma génnee chronique ci son Iblis j'ai reçu pas mal de critiques you know am seen mais aussi j'ai reçu pas mal de commentaires yoo xamante ne am na ñu bëri ñoo xamante ne ni ma xalaatee lañ xalaatee li ma gis la ñu gis te duñ sax ay fans dip waaw muy loo xamante ne nag sama gars yi Choumi TV ni mu leen mënee nangulee loolu noonu ngeen ko mën a nangulee moom it xalaatam nde man Choumi personnellement dama gëm ni King Baba bu seetaanee sama chronique boobu du ma sa jàppal Choumi TV benn en wala mu jàppal ko dara ci xolam parce que xam na ni je suis un chroniqueur chroniqueur ak critiquer ñoo ànd. yéen vous êtes des fans moo tax des fois chroniqueur bi pour mu wax ak yéen day difficile parce que vous êtes tous émotionnels ñu ci bëri seen ci émotion ngeen di dox. mais man Choumi je suis un chroniqueur sama gars man doxuma ci ay émotion su may ñëw di chroniquer su fekkente ne vidéo bi ma ñëw di chroniquer dafa laaj ma critiquer waa ji damay critiquer te démb yéen ñi seetaan sama chronique yëpp sama gars yi gisoo leen ma mu critiquer rappeur bi gisoo leen ma aussi ma critiquer Ngaaka Blindé ne ko que du rappeur man mënuma ñëw démb di rouge bu subaa ma ñëw di jaune loolu moo ko def ñu ci bëri ñi ma yàgg seraan sama page YouTube dinañ gis ni lu ma chronique lu ma chronique ci King Baba mosuma ko chronique ci benn rappeur te sama chaîne YouTube mi ngi bëgg yàgg léegi deux ans def na ko. mënuma toog démb ne Ngaaka Blindé mënoo lim trois rappeurs yi gën a dóob ci game bi di ko ci génne tey mu ñëw ne Ngaaka Blindé xamul dara loolu mënul nekk. dama gis ne nag ñu ci bëri ñu sa chaîne YouTube noonu la ñu mel quoi tey mën nañ leen ne sa awaay ah yu noom seen yow yow yaay sama chroniqueur yaa fi ne. mais parce que tout simplement li ngay wax seen rappeur lu positif la loolu ñu bëgg dégg mais bu jour ñëwee ba nga critiquer rappeur bi moom you know seen di nga dégg lu nga soxor ak you know lan mooy problème bi lan mooy problème bi man loolu laa gis loolu laa analyser Choumi TV soxlool muy nduróo chroniqueur yëpp nu ñuy xalaate fii chroniqueur bi fi taal sa caméra li nga gëm ngay wax li nga sentir ngay wax dëgg la nag des fois moom ay chroniqueur yu des fois mu ay chroniqueurs yu féeg yoo xamante ne dañuy bañ ku leen mere wala peut-être dañoo am benn connexion ak rappeur bi. you feel me rappeur bi bu defee même chose bu benn rappeur bu mel ne rappeur ak bees def. mën nañu génn critiquer ak bees ne ko affaire Illuminati ngay def. you feel bi nga sol dafa am ay ay you seen ay couleur kon couleur LGBT la mais bu fekkente ne beneen rappeur moo def lu mel noonu. yow loolu amul problème quoi mën nga toog di jéem a jaay gaay ay philosophe naan da ngay jéem a expliquer clip bi lii ak lii non non man su ma je ne man su ma chroniquer le rappeur ak bees bu réaliser clip bu mel ni bu Ngaaka Blindé réaliser ma critiquer ko ci clip boobu kon su Ngaaka génnee clip bu similaire clip ak bees dama koy critiquer man loolu laa gëm man je ne suis pas un chroniqueur avec deux faces cachées man du ma nit boobu waaw ku ma ci bëgg nag amul problème ku ma ci mere aussi loolu ça me dérange waaw li ma bëgg wax rek sama gaay yi dama leen bëgg wax rek ne leen gis nga nit da ngay dëggu doomu aadama boo nekkee ci àdduna da ngay nangu ay critique da ngay nangu di déglu négatif noonu la monde bi di fonctionner Choumi TV man ba ma dalee chronique ba léegi mosoo leen ma gis sama gaay ma ñëw di tëj samay commentaire lu nekk dégg naa ko dégg naa fi ay saaga ndey dégg naa fi ay menaces lu ne gis naa ko mais loolu dérangé wu parce que man maa opté pour doon un dama gëm ni la rappeur Ngaaka Blindé laataa muy doon rappeur xamoon na ni sénégalais yi dina am ñuko bëggul xamone na ni sénégalais yi dina am ñuko critiquer kon sama vidéo bi demb dama gëm ni bu ko King Baba sérané lool du ko déranger non non lool mënul déranger ka Blindé mais yeen ñi ñëw ci chaîne bi yeen ñi may seraan yeen vous êtes des fans moo vous êtes tous émotionnels ñu ci bëri seen ci ay émotion ngeen di waxé muy lo xamante nak nag ça me dérange pas waaw je muy comprendre na leen mais je veux vous dire tout simplement ne leen sama gars nit ki des fois dalen ko nangul opinion si vous n'êtes pas d'accord ngeen ma vous êtes pas d'accord mais bu vous ñëw ci commentaire di diaboliser pour ñu gëm ni que chroniqueur bi you know dafa soxare ngaaka wala chroniqueur bi dafa bañ non non ñi ma xam ngeen ni sama vous li wax ci ngaaka yag ngeen ko dégg duma répéter bu vidéo ma c'est une vidéo vous xam je dois critiquer le rappeur mais damay critiquer rappeur bi ma bëgg len wax aussi ben mbir muy mooy gis ngeen sama gaay yéen ñi may seeraan ñëpp wax dëgg yàlla bu dee yàlla dëgg rek tax may wax Choumi TV mësul ñëw samay vidéo man mësuma ñëw samay vidéo nan leen sama gaay ngir yàlla maa leen di saraxu bës leen bouton abonné bi loolu mësul am te du mësa man ak yéen YouTube moo ñu boole da ngeen service si YouTube bi mba découvrir ma kenn si yéen xamuma man su xaw ma ci kenn si yéen li may chroniquer ça vous moo tax ngeen bës bu noo abonné bi kon man su dama leen bëgg leeral ne sama gaay bu leen mësa a foog ni man su bés dina ñëw ma leen di supplier pour ay abonnement wala ma leen di supplier ne ngir yàlla bu leen désabonné ngi ngeen sama gaay su fekkente ne daf ci am ñenn ci yéen ñoo xamante ne dama wax lu leen déranger ba santé ne dañu war a désabonné chimie daf leen bëgg wax ne leen soxlawul ngeen ko koy bind ci commentaire yi. vous n'avez pas besoin ñëw samay commentaire naan ma ay saa maa man maa ngi maa ngi nday désabonné sax bouton abonné bi mi ngi jàkkaarloog yow noonu sa téléphone nga may seetaan da nga koy bës rek génn mais chimie dafa la bëgg xamal ne la gis nga bis boo amee sa fulla ba bës bouton abonné bi génn da ngay dëggu. bul gisati benn vidéo chimie même bu fekkente ne c'est une vidéo attirante ko cliquer chimie man musuma ñëw di laaj kenn di ñaan kenn ne ko ngir yàlla bësal leen ma bouton abone bi man su ma ñëwee di chronique lu ma sentir laay def ñi ma bëgg ñi ma sentir ñoo ñooy abonné te gëm naa ne ñi ma xam ñëpp xam nañ ni man su mi lépp lu may def dama ci naturel man duma ñëw sax toog ci kanamu caméra yu noom seen di changer ni may communiquer en vie réelle di changer sama personnalité su bi ngeen di gis samay video man noonu laa mel en vie réelle laay waxtaan ak nit ñi nii may def ni samay gestes yi man nii de sax nii sax ay waxee waaw lenn ci man féegul du ma ñëw toog sama kanamu caméra di jaay perfection di leen wan perfection je ne suis pas un homme parfait ni ma mel nag su ngeen ma ci bëgg ngeen bëgg ma ci noonu su ngeen ma ci bëggul soxlool ngeen ma koy wax mën ngeen génn ngeen dem sama gaay fii ba may bàyyi chronique yi du ma mës saraxu benn mbindeef bu yàlla bind pour mu abonné sama chaîne YouTube loolu du mës bu jour ñëwee ba ma toog ne dama koy def barki Seydina Muhammad ma tëj sama compte YouTube man sumi li ma am ci ay fans Ngaaka Blindé yu ma fekk Instagram li gën a sori ci man la ñu am muy sama numéro téléphone man sumi sama numéro téléphone dafa privé du ma ko jox n'importe ki ci sama chronique yi ma def ci King Baba barki Seydina Muhammad laa de Choumi TV man dem naa ba am ci des abonnés yoo xamante ne maanaam dañ maa seen cofeel nit yu lay wax ne dañ laa bëgg eh, waaj jooy nekkuñ sax au Sénégal parce que da nga chronique ci King Baba ñu fekk la ci Instagram di la saraxu ngir yàlla buro jox ma numéro téléphone dama la bëgg te yàlla tax ma jël sama numéro jox may ay message chaque fois di ma motiver di ma apprécier Je nit yu mel noonu la de TV soxla mais man chumi benn benn nit koo xamante you know am li ci artiste rek bu jour ñëwee ba ma wax sama lu négatif ci artiste mun naa ne cliquer vidéo yi j'ai pas besoin de ces gens d'abonnés su fekkente ne nit ku mel non nga sama gars yi TV soxlawul ma sama page sincèrement quoi su fekkente ne da ngay wër un chroniqueur bo xamantene da fay wax tout simplement loolu ngay bëgg dégg ndamal nga chroniquer ci yenen page YouTube yi Choumi TV du page boobu Choumi TV man du page boobu lima ma sentir samay vidéo min def mënu ma ko teree bañ wax mais je n'ai rien contre le rappeur je n'ai rien contre kanga Blindé Choumi TV dem naa bàyyi fan si Omzo Dollar ñëw ci page bi di ma critiquer naan ma Choumi yow bu ñu wax lenn lu ñu mën a dégg parce que yow dafa mel ni sa page bi ngaa ko blende moo a nga créé ko depuis nga chroniquer ba léegi mosoo chroniquer ci Omzo Dollar mais ñoom mënuñu comprendre ne Omzo daala dafa toogoon benn deux ans et demi yu seen génnewul dara te chaîne YouTube bi deux ans rek la def ndem nañ ba jàppal ma ci en parce que li may chroniquer ci King Baba moo bëri kon man Choumi j'ai pas besoin di demander kenn avis ci li ma war a def. bis bu ma demee ba war a dund loolu ak yéen sama gaay non sincèrement ma war a xoolaat sama bopp Choumi TV masul ñaan kenn masul saraxe kenn pour mu abonné kon su fekkente ne jour dafa ñëw ma wax loo xam ne bëggoo ko dégg nga bëgg a désabonné bu ma ko bindee bu ñëw samay commentaire naan ma bro maa ngi mbu mbuton bee ngi noon sa kanam bés ko nga génn bu jour ñëwaatoon nga akable ne génnaat beneen clip boo xam te ne dama gis ni dama ko war a critiquer dama koy critiquer dama koy critiquer sans pour autant ma manqué ko de parce que ñun chroniqueurs yi mun naa bu ñuy wax ci Pop Galsen rappeurs yee tax waaw bi est vrai nag yenn saa yi nga gis fi ay chroniqueurs yu rëy tuun chroniqueurs yu mën a duul chroniqueurs yu rëy gàtt bu la neexee toog seen kanamu caméra naan ay maayor caabi gem bi di duul jëmale suba te bu chroniqueurs yi génnewul dara mun naa ne bu rappeurs yi génnewul dara duñu mës a chroniquer nit ñi duñ leen saraan fii chroniqueur bu fi génne di jaay rëy làmmiñ rappeurs yi ñoo la ko may parce que rappeurs yi génne song nga chronique Choumi TV man doxuma ci loolu Choumi bi ngeen di gis nii noonu laa mel en vie réelle bëgg ci loolu nga bëgg ma ci kuma ma ciy bañ bul ma setaan man su ma la waree chroniquer su ma la waree critiquer dama lay critiquer mënuma génn di critiquer la rappeur ak bees ci clipam bu mu réalisé woon mu génn ci wax na ci ay suñu Illuminati ñu génn critiquer ko ba di ko accuser naan ko ay dafa bokk ci ay affaire franc-maçonnerie le rappeur Ngaaka Blindé réalisé même genre clip bi

Choumi TV samay nombre de mayu ma xaalis su fekkonte ne koppar moo tax may chroniquer kon seen YouTube bi bàyyi naa chronique yi sama chaîne YouTube bi généré ma xaalis man su ma lekkee su ma naanee suma liggéey moo ma ko may pour bu dire loolu pour mu leer sama gaay man néew ku ma fii di wax kenn lu mu bëgg dégg su fekkente ne nag danga dem ba gisoo sa bopp ci li may def ma génnal page bi nga dem man duma la saraxu duma la ñaan du ma la tàllal loxo mais pour vous dire rek ne sama gars yi gis ngeen bi ngeen di jàkkaarloog ci caméra bi man noonu laa mel en vie réelle du ma bës sama bouton bi war a wax ak gars di jéem jaay perfection di changer sama personnalité ni may communiquer ma changer ko mais su su vidéo bi jeexee ni may communiquer neneen la ni may communiquer gestes yi may def laa mel en vie réelle je suis naturel man du ma nit soxor du ma nit ku du ma nit ku iñaan jikko yooyu mën nga ma wax loo neex nag mais jikko newul ci man. ne ma chronique ci Ngaaka Blindé loo bëggul dégg ñëwal nga critiquer ma amul problème ñëwal nga bindal ma message mu mature nee ma Choumi je pas d'accord man je pense que ni lii lay wax su fekkente ne dafa der ma def une deuxième vidéo mën naa ñëw def une deuxième vidéo mais bul ñëw tey di sànni xeer chroniqueur bi te démb yaa ko tàgg man gëwuma loolu waaw mais pour vous dire rek sama man bu leen ma jéem a man kenn mënu ma intimider man Choumi je m'en ci ay nombre d'abonnés je m'en fous ci ay nombre de vues gis sama chronique yi may def dama ko bëgg moo tax ma koy def mais man YouTube dundalu ma man maa ngi sant yàlla xiifuma j'ai aucun problème kon yaakaaruma ci YouTube pour ma fay ma du ma ñëw sama chaîne YouTube di wax lu neex kenn mësuma ko def te duma ko mës a def ku may bëgg danga may bëgg ci ni ma mel ku bañ ga bañ ma ci ni ma mel mais pour vous dire rek sama gaay non c'est un message yooyu ngeen bind dama bëgg ngeen arrêté ko quoi sa way ñun ñi ngi désabonné non bu leen pas pas da ngeen bës pour non désabonné bi genn su Je ne ngeen gis Je ma saraxu nit pour mu abonné du Je am. TV dal tay sama gars yi mo message bi dama uniquement pour véhiculer message bi deuxièmement aussi dama pour wax ci clip bu bess bi sincèrement c'est un très beau clip c'est un clip bien réalisé machallah you know Ngaaka Blindé c'est un rappeur bo xamante ne yàgg ko il est très polyvalent ay styles musical yi bokkul leer waaw man lool la gëm ma gëm ni aussi ba fii ñu toll sincèrement ñun les sénégalais bu ñuy wax sax lu jëm ci hip gal sen c'est grâce à King Baba mom kep mo fi un rappeur bu consistant waaw ñi ngi tok nak di déglu d'ici décembre parce que d'ici décembre ñi ngi xaar ay rapport quoi ku ci melni ni Dip wala Omzo Dollar you know xamna naa ne game bi dina yëngu quoi bu jooree chronique aussi dinañ gën def ci chronique. waaw lii nii daal tey sama gars yi moo doon message bi Choumi TV mu ngi leen di bëggee di leen ñaanal jàmm ak salaam di leen jox rendez-vous ci yeneen